السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دون السلام عليكم مبوكو سنغال نعم لين دي نيو دي لين زيارة تدي بالو أقل باخ باخ دي لين بال دي نيان بروم بيالا سبحانه وتعالى مبولة نيو نعم نون نعم نيان يالا مبودة الفاني نعم كو مويرل تيري ويوك سوتر بي دفل نيو ترانغا أدونا دفل نيو ترانغا الاخرة نعم كو نيان مسامن كي زاهر ويتامي مسامن كي ما شاء الله لقن فو يق اقل

en tout cas def li nga xamante ni choc la si ñoom léegi nag euh, problème bi nekkul foofu problème bi nekk ci nii moom beneen religion la nekk waaye teewul ñi nga xamante ne ay am di jàmm lañ dañu amante moom ay relation yu rafet mën nga ni xëy na li ci ëpp ay jullit lañ ba waral ba ñu yégee loolu ñu ko doon ñaanal ci ñaanal googu nag dem ba lu mel ni polémique juddu si ñenn ñi jàpp ni ñaan gi dafa war ñeneen ñi ne noonu ñaan gi warul lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu interdire la mu mel ni nag donc werante xaw see juddu euh, parce que toog nañ yaakaar naa ci même journée bi jot nañ ci lu mot cinq wala lu ko ëpp sax ci ay questions yu ni mel ñu ne pourquoi pas ñun aussi tamit ñu ñëw rek. apporter si ay leeral tuuti rek incha allah rabbi donte ni bari nay ay boroomi xam-xam sax yu ciy wax euh, laataa maa ñëw si loolu man dama naan sunu problème principal ñun surtout ñun jullit yi surtout ñun jullit yi parce que côté boobu laa bokk fa laa mën a waxee moom laa xam sunu problème principal mooy lan dañoo am problème mu pédagogie problème pédagogie maanaam ñun. suñuy jàngalé li ci moy jàngalé kat da nga wara am un objectif bien déterminé par exemple nga ni li may jàngale dama am cible wala ba objectif bi ma am dama ko bëgg atteindre mais bala nga atteindre ce objectif il faut impérativement nga définir ce objectif manam nga xam luy sa objectif d'abord c'est quoi l'objectif euh, li tax ma wax lool muy damay faral des fois ci réseau yi sax ma romb donte du ma ciy dugg du ma ci sax yàq samay temps ngay gis par exemple surtout TikTok live fii am mën naa ko ñëw ci suñuy mbokk Ibaadu Rahmaan yi ak ñun ñi nga xamante ni dañu gëm tariqa da ngay gis mën nañ def ay boo xamante ni mën naa jël dure une heure deux heures trois heures voire même quatre heures de temps ñu ciy toog di ci werante werante yoo xamante ni. doo xam fan mooy bopp bi ak lan mooy génn ba pare njariñ li ci boppam au juste doo ko xam da nga ko dul mën a mesurer euh, ngay gis des fois koo xamante ni ndeysaan li muy indi tey nekk lu leer nekk lu wér mais façon bi mu koy aborder ak façon bi nga xamante ni moom la bëgg nit ñi comprendre ko day tax au lieu mu am ci lëm doon sàkku mais au contraire sax soo moytul ay noonu la ciy gën di am ak ñoo xamante ni dañuy gën di sori la nga xamante ni mooy dëgg parce nit dama naan ku ko xeebal sëriñam yaa ko tooñ ku ko xeebal ku ko xeebal tamit feebaram yaa ko tooñ nit munoo ñëw fekk mu am gëm-gëm yow nga jàpp ni li mu gëm nii yellul li mu gëm ni kat du deug mais bo ñëwé yaa xayti il faut nga am stratégie am système am méthode bo xamanteni mom ngay doxale ak mom ba génné ko ci li nga tuddee lëndëm indi ko ci leer mais do ñëw fekk lepp lu mu gëm nga ñëw rek saago ko maanaam ñëw rek barak dal ci kaw ba paré di xaar à ce que mom mu ñëw nangul la ñëw rek soumettre koku yaakaaruma mu meuna nek mo moo tax à chaque fois li wax c'est-à-dire que lépp lu def nañu xol lan moy objectif bi c'est quoi l'objectif objectif bi moy dama ñew fekk ni ñi ñu ngi gëm li nga xamanteni ni du deug wala ñi ñu ngi jëfëndiko manam lenn ci walum diine ñu japp ni que ni li ni ni moy diine alors que du diine man légui nak man bi ñëwé lima bëgg nekkul ni dama bëgg ñu ni man ma am xam-xam nekkul ni dama bëgg ñu ni man rek ma dégg aaya yalla yi <coughs> maay jéglu nekkul ni dama bëgg ñu ni man ma pek lepp nekkul ni man dama bëgg bës ba man may wax lu kenn waxul dedet li bëgg moy ki nga xam dama ko gis kat muy réer ma japp ci loxom jël ko ci yoonu réer ga mu nekk indi ko ci yoon ba nga xamanteni ne yoonu njub gi waaye xeet ki nga xamanteni objectif bobu la am man normalement yakarna buy ñew du ñew agressivité du ñew ak violence dedet mais mën naa ñëw ndànk-ndànk ci dal waxtaan ak nit parce que tamit li may wax rek euh, doomu aadama c'est-à-dire que ak teey tekk ak dal lum la mënul may lu ne xëbar xëbareeg jaay dooleeg yuuxu du la ko may parce que gëm dafa nekk lu nga xamante ni euh, nekkul lu ñuy forcer doomu aadama bi déedéet ngëm-ngëm nekkul lu ñuy forcer doomu aadama tey comme ni ko borom bi yàlla subhanahu wa taala waxee woon yonente bi rek mooy innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yashaau wa huwa aalamu bil muhtadin borom bi yàlla subhanahu wa taala ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam ni ko ni yow innaka laa tahdi man ahbabta nekkul ne yow yonente bi salallahu alayhi wa sallam da ngay jubal ki nga xam ne daf la neex déedéet man yonente maanaam yonente bi salallahu alayhi wa sallam da la wax ni ko ni kii daf la neex wala bëgg nga mu jub rek day jub déedéet mais man borom bi yalla subhanahu wa taala man may jubal kuma ma kon donc sah. Mom sallallahu alayhi wasallam sax mom dañ ka force loowul wala néewuñ ko da ngay am resultat par force ba yow nga ñew taxaw ni yow par force da ngay am resultat di wax du yoxo num la nexé wala di force nit ki ñew di ka dal num la nexé li tax ma indi lool muy tay par exemple ki nga xamanteni dafa am mbokam mu genn aduna am fi nga xamante ni fa la ko mbokk mi toll woon yaa xeeti loolu bu amee choc lay nekk ci moom nit ki nag du nekk ci naqar ci diis nga ñëw di am noo waxeek moom déedéet mais dalal ko la njëkk laata ngaa ñëw rek di ko imposer yow it say say say say say say sa sa dëgg wala doonte sax dëgg borom yàlla subhanahu wa taala la dafa am nañ koy defee man boobu loolu laa gëm. dama japp ni méthode bi nga xamanteni mom lañu jël war nañ ko war mën di xoolaat di démé tolérance li di step by step wala bok ñu ni ndank ndank moy japp golo ci ñay mais doo ñëw rek forcer sa gëm-gëm ñepp tamit gëm-gëm dafa euh bu lolu weesoo tamit il faut aussi ñu comprendre ben affaire muy diiné manam tënkuwul ci ay émotions déedéet tënkuwul ci ay parparloo ak tënkuwul ci ay xel mu rafet ak nii laa gisee déedéet ce son des textes bien établis yoo xamante ni borom bi yàlla subhanahu wa taala dafa teg ay texam ay textes yu ñu établir mu leer nañ textes yi nag da koy mën a appliquer nga bokk ci appliquer woo ko bokkoo ci mais nag yow sa xelu boppam sa xalaatu bopp wax dëgg yàlla kenn laaju la ko kenn defloowu la ko yi honnêtement donc ay texte la yu ñuy appliqué tey euh, bu ñu nee ndax nit jullit mënees naa ñaanal ku dul jullit jullit mënees naa ñaanal ku dul jullit réponse bi day ñëw à deux niveaux bu si njëkk bi muy jullit mën naa ñaanal ku dul jullit koo xamante ni mi ngi dund ak jullit mën naa ñaanal koo xam ne du jullit waaye génn na àdduna ñaari côté yooyu lañ koy xoole léegi bu dee ki nga xamante ni jullit la maanaam du jullit te mi ngiy dund ñu ni waaw mënees nga koo ñaanal ci lu dem ci wàllum wér